suka ay ca deru leer nga xam ne rek moo di liggéey bi d'accord dañuy dañ koy dalal ko nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko mhm. te dañoo seet si woon nag tey mhm. donc ñu ngi lay nuyu Ousmane di am mbégte di am kontaante mhm. teewaay bi nga xam ni teew naa ko ci plateau bi di rafetlu bu baax jàkkaarloo bi nga xam ni jàkkaarloo nañ ko ngir ñu war a waxtaanee lépp lu jëm ci tolluwaayu réew mi Ousmane yëg nga dégg nga kàddu président Macky Sall lam nee na nga nga réglé sam fecc. dégg nga kàddu Macky kàddu Macky Sall bi na nga dal ndax moom mooy président de la république yow doo président. waaw bu demee ba tey ñu fal ko boobu ba nag ni mu koy soog a xam ne tey mooy président loolu njuumte am na. mais fatt nga ko nag. waaw mais c'est bu ñu falee nit mu dem ba tey muy soog a wax ne man maay président. Mhm. yëgutoon kon moom ni fal nañ ko loolu foofu la problème bi ne parce que defe naa ni warta toog ba tey naan maay président. waaw loolu mhm. mooy li nga xamante ne bi rek mooy wane ni kon am na lu mu ñàkk ci nguur gi ba mu rëcc ko mhm. ba tax léegi mu koy bëgg a dabul ji nag pour wane ni naan man maay président mhm. kenn waxu ko ne ko doo président niñ ko fale yëg na ni askan wi ko faloon dañ nañ ci moom looloo tax ba noppi nag ba nëga ni mu naan léegi nag man maay président parce que xam na ni sénégalais yi nga xam ne ñoo génn am na leneen luñ bëgg ci réew mi lu wute lool ak ni nga xam ni noonu lay doxale du bu jàppee ni Ousmane Sonko moo ko koy wax rek mu ngi ci erreur dafa war a jàpp ni lii nga xam ni moom laa ko wax ay point la yoo xam ni mm-hmm. ndaw ñee ma dee ak sénégalais yi ñoo ma dee ngir ma jottali ko man nekkuma lu dul intermédiaire entre diggante moom mi nga xam ni bii moom lañ faloon mu nekk ca leneen mhm. askan wi di ko fàttali jaaree ko ci man ngir ma yeggee ko ko kon donc loolu mooy li nga xam ni moom la war a gis ci wax ji waaye bu gisee ni Ousmane ay wax ak man mhm. ba tax mu bëgg a def neneen mhm. ña fi nekkoon yëngal dëkk bi ñu ngi fiwaat waat te soriwuñ euh, donc nag ngir uh-huh. ah, dal am ci réew mi balaa ñuy dem ci deuxième vague ngir dal am ci réew mi balaa ñuy dem ci deuxième vague mooy li ma koy wax mooy li ma koy wax parce que vague mooy gën a metti première vague yàlla buñ ci yegg ñaanuñu yàlla yegg parce que bugguñu di yee fitna waaye fitna kan moo koy yee entre ki nga xam ni jotti nañ ko wax moom mu bañ a jëf mhm. moom mi bañ a jëf bu fitna jógaatee ci réew mi moom mooy ki nga xam ni moo indi fitna mhm. loolu mooy li may wax Macky Sall parce que Macky Sall ci jëmmi boppam dafa nekk koo xam ni dafa toogoon ba jëmmi jamono mu ne xaw ma buur la xaw ma mooy Masamba Piram Penda Jéeri xaw ma lan ak lan. Uh-huh. di commencé di fëgg ay bën naan Birima Macha ñëw ñu far la réew pour nga wax ak sénégalais yi nga ne Birima Macha benn baat ba. Uh-huh. donc loolu mooy li nga xam ni. Uh-huh. mooy erreur bi nga xam ni moom la doon dund ak sénégalais yi. tey nag sénégalais yi dafa am loo xam ni jël nañ ko révolution et en marche comme ni ma ko waxee. li koy firndee nag mooy kaddu yi ma ko wax muy fukki poñ yi ma ko jox juróom-ñeenti poñ yi. na ko jëfee bu ko jëfee Sénégal ne ci dal mu yeggale mandaam ci jàmm. Mhm. ñu accompagner ko ba deux mille vingt quatre mu génn pale bi daal di dem yoonam ñu organiser ay élection keneen dugg ci pale bi mën naa doon ku ne. loolu waaye mu nekk ci loo xam ne dañ koy def ci démocratie. ah d'accord bëggul loolu beneen a fi ne xale yaa ngi fi. beneen boobu lu tax doo ci ñaan jàmm Ousmane. soxna si mbir mi du question ñaan jàmm lan mooy jàmm looy tuddee jàmm. ah mais itam première vague bi gis na mu def. jàmm deuxième vague bu gënee gën a ñëw mbaa gën a sonn. añut reeru mhm. ndekkiwut ndax mi ngi ci jàmm. kooku mi ngi ci jàmm. nekkul ci jàmm. ki nga xamante ni kii daq nañ ko ca bu liggéeykaayam doon nekk. te lépp di liggéey Macky Sall kooku mu ngi ci jàmm. nekkul ci jàmm moom it. sénégalais yi nga xamante ni bi dajale nañ li am. Mhm. dem ba yegg bitim réew yaakaaroon fa ñu dem signé ne leen dellu si leen loolu yëpp di Macky Sall kooku mu ngi ci jàmm. Mm. ki dajale ba tabax këram. defar ba mu jekk yaakaar ne day tuxoog njabootam ñu xëy ne ko rajax kooku mu ngi ci jàmm. ana kan moo nekk ci jàmm bu ñu may wax jàmm dama naan ban sénégalais moo nekk ci jàmm. Mm-hmm. c'est ça problème. il faut que Macky Sall xam ni du ñu fi nekk di noosee li nga xam ne mooy alalu réew mi moom ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal. Mm-hmm. loolu munta ne. loolu mooy li nga xam ne moom laa koy wax. wasalaam euh, Omar dafa am loo ko bëgg a laaj moom Sonko. Ousmane waaw. yow daal dafa mel ne kaso bi dala xabtal. Mhm. na nga génn géeg yaa ngi dem ngénte di dem dëkk Ousmane fu ne yaa ngi koy <laughs> ba ba <laughs> sax ba ci ba bi sax ñu ngi ne woon ay ñoom ci système bi lan bokk yow yow anti système nga mais yaa ngi lëngoo sax ak système bi ñu mel na ñoom xalifa Khalifa Ababacar Sall tey yaa ngi sedd El Hadj Malick Gakou <laughs> est doo fekki ba génn géew bi ah, ah, xam nga problème mooy nit ñi dañu amul dégg sénégalais yi ñu ci bari laay wax bokk damay wax ne dese nañu am dégg système système doxalin la waxuma ne nit laay xeex mhm. bu ma ne woon nit laay xeex ñu mën a wax ak man bu ma ne woon tey Malick Gakou intéressé wu ma Diop Decroix faale wu ko wala kii faale wu ko bu boobaa ñu bu ma ma gisee kooku ñu mën a wax mhm. waaye dama ne système doxalin doxalin nag li nga xam ni moo ko fi jëlee mooy ñu yëkkati ma teg ma ci bopp réew mi xool ban doxalin laay doxal ndax bu mel ni bi ñii di nekk laay doxal. wala beneen la. Eh, jërëjëf donc pour. changer système bi loolu rek lay mën a doon. incha allah lambar lambari lambar lambari gi moom bëri na. yaa ma dàq lambar lambari foofu euh, mu nekkoon ki nga xam ne rek euh, moom moo di Ousmane Sonko. waaw yaakaar naa ne dégg ngeen li nga xam ne rek moom moo di ay kàddoom. Mm-hmm. Euh, jox na li nga xam ne moom moo di neuf points ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall. Mm-hmm. neuf points yooyu ba tey nit ñaa ngi koy sax di laajte ndax neuf points bi ci gën a neex mooy bi mu taree pasal ki nga xam ne rek moom moo di première dame. Mm. ma ciy nuyu Assane Gueye journaliste di xale bu baax. Assane ñu ngi lay nuyu seen anniversaire. démb la woon di ko wax joyeux anniversaire mon frère longue mm-hmm. boo ko de bonheur Assane dundal dundal loo dund doyul nit ku baax nga ah, donc dañ koy dalal kooku nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye Mbaye nag dafa faraloon ah, ajaratu lu musaana xew ci li nga xam ne rek moom moo di ah, pale mu génn wax ko mais coow li li muy rëy rëy ak li ñu def président Macky ba tey waxu ci kenn dégg ko mu wax. tey nag dañ koy tey waa tey dafa maanu. Mm. mais nag tey dañ ko dalal mbay nuyu nañ la Ndiaye. waaw auzu billaahi mina saytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi kontaan daje naa léegi ak sama frère ci bunt bi Ousmane. waaw may dugg maa ngi daje moom. mu ah, tax nuyonte ngeen ñu nuyonte wax dëgg fa mu nekk ku baax. ndeysaan wax fa yàlla nekk koo xam ne ku ànd ak dal la. waaw parce que Ousmane ku dal di ko nuyu di jot yóbbante naa ko sax nuyoo président. ci président moo la wax ni la nuyu ko nga wax ci kaw gi. bokkut ak wax ci suuf ah. waaye loolu yëpp secret d'état la. na ah. ngeen def. <laughs> lay laaj Tunkara. Mm-hmm. xam <laughs> waaw waaw ngeen jàpp ko léegi loolu laa bëggoon xam. waaw xam nga aussi Tunkara dafa nekk ci oto. Mm-hmm. <laughs> di live lay Facebook bu yemoon ci Facebook ak live ak yooyu ak youtubeur loolu problème amu ci. Mm-hmm. waaye Tunkara. di wax nag bari cele ni lan daal di expliquer wax ni le plan est bien déterminé xale yi kenn mun koo téye ci portable yi il est en marche mhm. ci biir la wax lakkat na ko ci angale all design all design nee na de design bi terrassé nañ ko ba noppi <laughs> kër yi dañuy àndandoo di takkandoo te ñëppay dee. comme que arab dee la wax de. nee na ñu rek terrorisme kay li mu kay li wax. Ben Laden mosu koo wax. Ben Laden. Ben Laden mosu taa wax lu mel nii. mais <laughs> yéen ñëpp di lim ay tur. waaw loolu dana di ngeen dee. billaay loolu wax ni moom ragalul dee. lii la wax de waaye yéen ñëpp. di hmm? ngeen dee. Hmm? waaw kii laa bugg rey. <laughs> mais yow bokkoo ci nag. mais nag la de. waxu la de. ojo na ko. <laughs> ojo na ko. waxu ko ci kaw télé ba waaye def ko audio sànni loolu nag nga xam ni Tunkara def na ko waaw léegi la président de la république euh, panique am jaxasoo am ñu ne waa waa ji nañ leen di janti mbir xam nga taal bii musta am ci marché yi am yépp bu mel nii mus fi am mhm. ah. Sénégal a nga koy sooga xam dëgg la loolu moom am na moom doo mhm. Kër Masaar di takk Géejawaay di takk mhm. Parcelles di takk Pikine di takk Yembal di takk Medina di takk euh, Thiès di takk Bambey takk baaba yeeg taal pono loolu mos ngeen ko <laughs> man bi ma demee ba jeg ñu ne Fatick taal nam yaa ngay ma ne waaw man damay bugg a jomee réew mi yëpp àndandoo di di takkatu xale yi di dee fii xale yi faatu mm. loolu yëpp lii kenn mos koo gis dëgg la moo tax lim ne lépp ko dëgg loolu président Macky Sall ne ko kii waxal ci moom kër El Hadj Diouf lakk ministre de l' intérieur war a aar nit ñi këram takk dëgg la Marème ministre de l' intérieur première dame taal nañ këram ah. waaw ca Ndar. dëgg la maa riyaayam boyal nañ. waaw kër yi di tax. sa kër man sama kër yoroon nañ almet maa génn. <laughs> maa génn li ma jaaxal nag. léegi yow ba nga génnee ba nga génnee lan ngay wax xale yi. Ah, da nga ànd ak ñoom xam nga mos nga ko fay def. damaa de yaa nii dañoo taal almet bi benn béréb ci nekkoon béréb ba tooy. <laughs> looloo ma musa wala sel diggéey ñoo la ñëwaat. wallaay béréb ba tooy de. maa ngi gërëm bu baax nag sama. Euh, koromak Mbaye nee na ma moom la. déedéet ah Koromak nee na moom la Koro ba ci jàppal. ah d' accord budul toon ak Koromak mais mais mais mais Mbaye. Mm-hmm. mais li ma jaaxal kër yi ne dañ koy tàkk taal yëpp bi ñu koy taal seen borom nekku fa. waaw waaw lan ah, lan ngeen yëgoon. avant waaw xam nga kër yi nag wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp dañoo àndandoo nag bokk kii nag groupe whatsapp boo xam ne kenn filtré wu ko. déedéet kite kite leen kite leen. kite yi bi ñu waxee kite leen. waaw am na ku infiltré wu dafa defe ne kite groupe bi lay wax fekk de kër yi lañ wax. Ah. gaa yëpp quitté kër yi. ah d'accord looloo ñu musal. looloo leen musal quitté leen kër yi tey ngeen di. ñoom ñëpp gaa yëpp quitté. dëgg la wax nga dëgg mbay. dem na ba jam jamono xaaral. man moom wax dëgg ko yàlla. waaw waaw ñaari nit nee nañ ma Macky Sall ma ne xaw ma ko. yéen yéen ma ko. xamoo Macky yow président Macky. saxaat boobu. ma ne wax waaye boobu parcelle la. dema dam koñ dug unité 3 jaari jaar <laughs> unité 4. waaw karkara ba ne ma kii du Mbaye Ndiaye mu makki ma ne eh Mbaye Ndiaye mu sonko. eh, eh jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sonko ma ci génne. sonko ma ci génne dama ne Mbaye Ndiaye mu sonko ñu libéré ma. Eh, jërëjëf ma bay léegi ne leen terrasse mais naa gisu leen ko ci whatsapp. déedéet <laughs> daa di gaawantu daa di wax sama mbokk yi ñu partagé ko ay Mbaye Ndiaye ma tegal leen audio yi ñu daan ay Mbaye Ndiaye kon terrasse mais nga ma ne waaw sonko sonko patriote patriote looloo ma sewee technique boo ko defut yàqu. yow yaa ngaa def technique. technique nii laa defoon ci Cheikh Béthio. dëgg ay booy sonko yi bi ma ko dama sonko le kii du Mbaye Ndiaye ma ne leen mu sonko mu sonko <laughs> Mbaye Ndiaye mu sonko. jërëjëf jërëjëf mu ne. wallaay wallaay moom moo di Mbaye Ndiaye.